alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam amma baad euh, mbokki jullit yi mbokki groupe arrahma ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di am mbégte bu baax a baax euh, di sant borom bi subhanahu wa taala euh, fas yéene ñëw ànd ak yéen ci programme bii nga xam ne moom la ñuy jàppalante ak yéen ci àllarba ci bu jot si waxtu bi mu nekk loo xam ne ay laaj la ak i tontu ki nga xam ne moom moo ñuy féete ci tontu laaj yi di ku ñu xam al oustaz Serigne Samb na ko yàlla sàmm kon dañ koy dalal incha allah ñu commencé li nga xam ne mooy laaj yi kon laaj bu njëkk bi euh, dafa ne uzkur baadu azwaaji nabi sallallahu alayhi wa sallam euh, tuddal lenn wala ñenn si soxna rasul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asraf almursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi ñu ngi dimbandikoo sunu borom tabaraka wa taala fas yéene dikkaat ak yéen sunu émission bi ñuy amal alxames ju nekk ci waxtu wi di ci ànd ak alostas Serigne Mbaye ñu ci ànd ak yéen ci téere bu am am solo muy maa laa yasaxu atfaalul muslimina jaxlu li nga xam ne jaarewul ci benn doomu jullit mu di ko réere xam ngeen ne ba léegi ñu ngi ak yéen ci xismu siira euh, sunu laaj bu njëkk tey muy laaj jëm ci eh, ñan ñooy soxna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne uzkur baada azwaaji nabi sallallahu alayhi wa sallam tuddal lenn ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga ne yonente bi dencoon na fukki soxna ak benn waaye juróom-ñeenti soxna la bàyyi gannaaw maanaam fi jóge juróom soxna la bàyyi gannaaw bala ñu tontu ci laaj bi nag ñuy xam le denc lu ëpp ñeenti soxna ci lislaam loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam képp dong moom moo ko jagoo sunu boroom moom may sunu boroom moo wax ne ca suuratul ahzab yaa ayyuha nabiyu inna ahlalna laka azwaajaka allati aatayta ujoorahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa allahu aleyk wa banaati ammika wa banaati ammaatika wa banaati xaalika wa banaati xaalaatika allaati haajarna muminatan in wahabat nafsaha linnabi in araada annabiyu an yastankihaha xaalisatan laka min duni almuminin li ñu itteel foofu mooy xaalisatan laka min duni almuminin loolu ñu la may ci kat yow dong yaa ko jagoo waaye ñeneen jullit ñi bokkuñ ci kon yonent bi saa sallam rek moom moo jagoo woon denc lu ëpp ñeenti soxna su ko defee nag ngir tontu ci laaj bi borom téere bi dafa indi ñeenti soxna ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa xam nga ne yonente bi soxna ëppoon na ëppoon na ñeent waaye nag lenn rek la wax tuddal lenn bokk na ci ñeenti soxna yooyu xadijatu bintu xuwaylid radiallahu anha xadija yonente bi sallallahu alayhi wa denc na ko lu jiitu ñu koy yónni mu nekk ak moom ba biñ koy yónni fekk na booba xadija la yor kere bi mu jógee xaaru xiraa bi mu ñëwee Xadija la fekk comme soxnaam mu daal koy wax la xew ca xaaru Hira ak yëpp kon Xadija kenn da ci ay soxnaam ginnaaw bu mu Xadija faatoo dencaat na yeneen soxna bokk na ci ñooña suñu yaay Aïchatu radiyallahu anha bintu Abi Bakr ne Siddiq naka noonu dencoon na soxna suñuy wax ummu salamata radiyallahu anha naka noonu tamit soxna suñuy wax Xafsa bintu Omar radiyallahu anha te mooy lenn ci ñeent soxnaam yi nga xam ne borom téere bi tudd na ko. kon ñooñu ci ay soxnaam lañu bokkoon sallallahu alayhi wa sallam macha allah barakallahu fiikum euh, kon laaju ñaareel bi mu ne man awlaaduhu sallallahu alayhi wa sallam ñan ñoo nekkoon ay doomam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilah sunu laajum ñaareel ci sunu bindub tey mu ne man awlaaduhu sallallahu alayhi wa sallam ñan ñoo doonoon ay doomam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir tontu ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na juróom-ñaari bant amoon na juróom-ñaari doom ñett góor ak ñeent jigéen ñett góor ñi kenn ki mooy xaasim te daan ko ko dàkkantare di wax abal xaasim moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ay turam abal xaasim ngir ñu ko dàkkantare ci doomam jooju di xaasim keneen ki mooy Abdullahi keneen ki mooy Ibrahim kon ñetti doom yu góor yooyu la amoon ci jigéen ñi mu amoon ñeenti doom ku ñu wax Fatima Fatima moom la mayoon Seydina Aliyu radiallahu anhuma Fatima naka noonu amoon na ku ñu wax Roqiya ak Ummu Kalsum Ummu Kulsum eh, Roqiya ak Ummu Kulsum ñaar ñooñu la ñu mayoon eh, Seydina Ousmane ba tax ñu di ko wax zone nurayni naka amoon na doom jigéen bu ñu wax zaynab zaynab kon ñeent ñu jigéen ñi la amoon fatima roqiya ummu kulsum ak zaynab moom nag doomam yépp dañoo faatu jiitu ko ba mu des fatima doomam yépp dañoo faatu jiitu ko ba mu des fatima naka noonu tamit doomam yépp kenn leen jur ba mu des Ibrahim doomam yëpp suñu yaay Xadija leen jur ba mu des Ibrahim Ibrahim ku ñu wax Maariyatul Qibtiya moom moo ko jur. Euh, barakallahu fiikum ustaas yi tontu yi am solo yi kon laaju ñetteel bi moom moo ci topp te mooy laaj bi nga xam ne mooy mujj si jotaay tey bi waaye tamit mooy laaj bi nga xam ni moom mooy mujj si li nga xam ne mooy xismu siira bi. mu ni ala maada taraka annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ummatahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la bàyyil xeet wi sunu laajub ñetteel di laaj bi nga xam ne moom mujj suñu bindub tey naka noonu tamit moom mujj ci xismu siira mu ne ala maada taraka annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ummatahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lan la bàyyi xeetam bi maanaam gannaaw bu mu fi jógee ci lan la bàyyi xeetam bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jógee taraka sallallahu alayhi wa sallam ala almahajjati albayda layluha ka nahaariha laa yaziqu anha illa halik maa taraka xayran illa dalla ummata alayhi wala sarran illaa xadaraha minhu yonente bi bàyyi na xeetam wi ci aw yoon wu leer naññ li ñuy wax aw xal aw ngir mu weex tàll leer naññ pakk newu ca pax newu ci benn lëndëm lëndëm nekku ci nga xam ne dafa leer ba mel ne guddi gi ak bëccëg gi mënoo koo xàmmee layluha ka nahaariha ni bëccëg bi di leere guddi gi tamit noonu la leere leer naññ laa yaziqu anha illa halik kenn du jàdd di wàcc yoon woowu lu may ko nar a ndax yoon wi dafa leer nañ kon képp ku ko wàcc ci aw ñal ngay jaar mu ne maa ka xayran illaa dallal ummata alayhi bàyyiwul dara dara dara loo xam ne aw yiw la loo xam ne lu baax la lu may tegtal na ko xeet wi kon kenn amatul lu muy fent di ko tudde lu baax di ko boole ci lislaam loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi xamu ko woon su boobaa loola bi daa lay tudd naka noonu wala charran illa hadaraha minhu amul dara dara dara lu bon loo xam ne yoon sa sallam bàyyi na ko gannaaw lu may ne loo na ko xeetam bi kon lépp luy lu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal na ko xeet wi xertal leen njëkk mu fiy jóge lépp lu bon yonent bi sallallahu alayhi xamal na ko xeet wi moytundiku loo leen ko njëkk mu fiy jóge kon loolu mooy sunu bind bu mujj ci xismu siira ñu ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu dëppale sunu dund ak dundu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam haada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain